a ah, maa ngi tudd Ousseynou Ba maa ngi am 26 ans maa ngi joué comme défenseur central à Olympiakos. defoon naa benn opération mais c'était prévu que def ko parce que dama amoon benn blessure bu ma doon traîner du coup après je suis obligé ma génn dem toog faju nekk sama bopp. après par la suite dellusiwaat naa mais dama si ak gaawantu waa donc mais bi ma dellu see club bi maa ngi joué après ñu joué contre le de Grèce ma am 14 après ma génn ñi dugg joué def ma si baax après ñoo ñoo continuer quoi. opportunité yi du jeex mais comme ni ñu wax rek boo nekkee ci équipe dafa am nu muy doxee donc doo yaa yóbbu sa bopp da gars yi proposition dem mm-hmm. donc il faut nga compétir après gars équipe yi ñëw club bi ñëpp lay soxla parce que ñëpp ay apte tout le temps dina am des fois moo am te ni dañu amee carton ñi dañu blessé donc day waaw faut se maintenir quoi pour euh, à tout moment mën coach mën la soxla wala équipe bi soxla la te blessure bi après donc moo cassé euh, dynamique bi après mais c'était quelque chose boo xamante ne mën ñu éviter fallait que ñu def ko pour mën a nekk si pour mën a connaître suñu carrière donc euh, bi ñu ko defee tamit après équipe nationale ñu ngi woon ci ci dynamique bu baax mais après tamit comme ni ñuy wax rek équipe nationale du Ouest donc c'est mieux vaut nga nekk si sa bopp après nga nekk ci yoon bi après équipe nationale dina la fekk ci wala nga fekk ci ko après comme ni ñuy wax rek avec le coach comme moom dafa ni waaye les joueurs qui ñuy football ak ñu nekk ci ak groupe bi di entraîner tamit période boobu j'étais pendant deux mois j'étais pas avec le groupe j'étais à Paris def sama opération ak sama rééducation donc fallait que l'équipe nationale tamit am ñu bees am équipe bi di dox après comme ni ñu wax rek donc c'est pas facile nga changer benn joueur génne kii indi kii mi ngi door a ñëw donc fallait que ñu toog xaar rek comme nii rek ñu toog xaar ba ñu woowaat ñu rek comme ñu on waaw bien sûr bien sûr nañ parce que comme ñu wax rek suñu dëkk la et puis lépp lu ñu mën a def suñu dëkk am ndam buñ ci mënee jàpp tamit dañ ciy jàpp rek personne boo xamante voilà, une bonne façon, quoi, tu vois. Une bonne façon tout tout changer, et puis il est correct avec tout le monde, il est respectueux, surtout dès que nous sommes. Donc, si nous avons des gens qui sont en train de se faire, il faut que nous ça veut dire que nous avons des gens Vraiment, c'est un bon nid là-bas, je suis en train de duma duma taay ci di ko gërëm quoi parce que bi may ñëw fii xaw ma fi kenn mënuma làkk anglais mënuma dara ya jafe que lui donc euh, mu jàppale ma ci yu bëri même si je joue pas que je joue ci biti coow li mi ngi doon bari mais après tout le temps danaa ma yaa mérité pour jouer yaa joué man su ma mérité jouer dinaa jouer donc noonu la demee rek amul benn problème.